biñ leen jàppee d'accord xañ na foo dem am na ay xale yu dëng xam nga tux ak ay ay moto kii ay yu sew sewaan yooyu xale yi def waaye fekkee dañoo bëgg ñu gis ñuy luubal rek ñi nga xam ne moom ay milliards la ñu luubal euh, te di ko jàll rawale fu nekk bitim réew xam ne ñoo gën a mat a kii waaye bu bu ñu xoolee xale yi li ñuy daj li ñu doon daj ñu dem déstabiliser leen ñoo xam ni bari na ñoo xam ne bu seen te am na ci ñoom ñoo xam ni les hommes d'état ñoo xam ne seen i doom bi ñu leen jaaxalee foofu lañu leen di yóbbu. Hmm. bañ tegewaat ci yoon. kon ñii bu ñu gisee ci ñoom benn benn yuy juum wala yu def yi fi xale yi itam ñu mën ko muñee. ñu mën koo toléré waaw inal xasanaati yusibna sayyiati. xam nga pañe guro boo ko amee. di nga ci am kenn benn yu cay sànq mais mais mais en fait li li problème c'est un problème d'état de droit c'est-à-dire ñu bari bi ñu yëgee centre yooyu comprendre ñu ne eh, que ñu créer ay centre jël ay xarit dugal leen fa ne dañ leen di yar et moom image yu ñu wane ci centre yi mu mel ni daal condition yi ñu mettoon dafa metti bu baax a baax yooyu yëpp ay kii rek ay montage la xam nga état yow tamit may mun a état lu mu bëgg a def état bu la bëggee créer état lu mu bëgg a def def ko c'est que kay loolu comme c'est le passé te du tee mm-hmm. ñoom loo ci gis bañ demee fële ci kaso ba waa kaso ba bëgguñu woon ñu génn ah parce que dañoo gentil ci ñëpp ñooy defal lépp ñëpp waaw ñooy defal lépp ñëpp yooyu daam bu waroo ak la ñu fay nekk ak li ñu leen di reprocher nii la def comprendre mais centre yooyu lu ko lu ko wundu. Oh, yar la rek daara la rek daara la rek comme ñoom dañoo dëkk Dakar waaye mi ngi mel ne daara yi lay ci àll ba rek <laughs> yar ay xale loolu la. da fii Dakar comme day am ay benn benn délinquant xale yu ndaw yi ñiy gens ak ñiy sàcc seen yëf yaay ak ay xale yu demee noonu sàcc yooyu la rek xale yooyu lañ leen daan yóbbul. ñu leen yar mais tas nga ko léegi wala mu ngi am. ñoom ñoo ko tasoon bu yàgg booba. ñoom hmm. booba. ñoom boobu lañ ko ñoom ñoo démantelé centre ñoo dem tasaare foofu kii jàpp chef yi yóbbu leen chef yi yóbbu leen téye leen ñaari at ak <laughs> lu topp mais yooyu man dérange ma parce que man koo xamante ni bii man lu ma dugg kaso ma ko gënal donc <laughs> am loo xamante ne bii la preuve mooy <laughs> président Macky ngi may dégg dama woowee téléphone ne ma yee général di xale yi seen njaaxum yi ñu kii bu ñu la ci tudd nangam ak nangam ma ne ko eh ñun ñëpp war a dugg ci kaso bi. Hmm. ñun <laughs> a ma eh, ah, ne xale yi bu ñu la tudd ci seen njaaxum. waaw mu ne ma njaaxum dégg ci xale yi bu ñu ma ci kenn tudd ak booba gaayam yi nee nañ ko. wala <laughs> tax maa ko ci sant te coup de film boobu kat dañu maa paas sëñ bi rek sëñ Mountakha dañu ma ko paas rek cinq minutes après rek ñu paas ma Macky.